waaye dañuy wax ne boo fekkee ne tawaatur am na kon nopp day am njëriñ hmm? mooy mooy koy bu fekkee comme fekke wuñu nag waaye lu wax tawaatur am na kon nopp day njëriñ nopp na lañ ca lañ ca fekke dégg ko moom bu ñu ko nettee daa neex lool kon jotaay bi jotaayub tey jotaayub démb la woon soxna si li ñuy wax tamit ñaari kër yi du wala boog ñaari bunt yi du benn du du du du du du ñaari kër benn kër la ko amee néeg rek euh, bu doon toon la fi jaaroon tamit ñoom war nañ ko def ngir la fi xewoon kon euh, su ngeen defee loolu ba nga koy wax suñ sëñ tamit di ko seere yàlla na yàgg ci Modou euh, diggante gerte googu ak fii moom xam naa ne diggante boo xam ne dañoo amoon dañoo amoon benn bant bu ñu jàppoon te mënuñ koo woon a xaaj ci digg bi ñu bokk ko ne war ko di ñu ànd war ko li ñu def def kon bant boobee nag tey jii moo war a lii bi ma séenee dama bëgg ma ko seeseel maa ngi seetlu borom dama ne bii de moom jotaay boo nekk tey jii la lañ fekkee ci lu néew man mii di wax ak yéen si suñu àll moom yóbbu daara waaw ñu bëri xamuñ ko waaye moom yóbbu daara moom yóbbu daara maag suñu abibu ak suñu maamoon suñu dugub moo ñu yóbbu kokki jëliñu saami bal te loolu ab cër la xam naa ne <laughs> loolu bay bay bayoon ñu xel waaye li rek ma ma ñëw fi wax expliqué ko ko maa ngi waaye maa la ñuy sagal ba léegi ma ree waaye cër la boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy baax baax dañ ko baax a ndax la wax kaw bi àggee donte boobu fukk ak nangam laa am waaye déggoon nañ ko baax a baax bay ne am na lu ñu wax bañ àggee am na wax sëñ ba kon ab cëram la woon boo xam ne bii dañuy xam ne alhamdulilah rabbil aalamiin saa moom defal nañu ko te moomoon na ko bokkoon na ci pour loo moom la bokkoon du yëpp kon ñu ngi leen xamal daal moom jotaay bi yàlla na yàgg sëriñ bi nga xam ne nag moo fi moom bay sëriñ moom fii laa ko ci fekk ci néegam bee yaakaar naa ne booba ñaari fan ci des ñaari fan maa si nuyu ko daal di toogam muy wax waxtu takkusaan suuf mun ma sant naa bu baax baax wax yee ma wax waxi leneen la ma daal di génn bi ñëw fa mu wax ko la mu ko wax ah waaye xamaloon ne ma suñu toll ñëw na fi moom la waxoon da ci gën gàtt loolu nga wax suñu toll ñëw na fi gannaaw bi la moom ki wax ne nag nee day dem waaye loolu moom ñëw ma ko wax waaye daal nee naa suñu toll suñu toll ñëw na fi léegi hmm? mooy tey. suba si gannaaw suuf si mu mu dem moom la nee na moom la jël waaye cër la yoo xam ne ci Baye Serigne ki sëñ Aliou ki di sëñ sëñ Baye Serigne mi ak ña mbokkoon na ñoom loola ba ci Baye Mbaye si moo rek Baye Serigne ñëpp ñoo dañoo ñoo amoon code la xam ne bii wala amoon ñoo xam ne mënuñu ñàkk ak sëñ bi mënuñu ñàkk ak sëñ bi mënuñu ko ñàkk ndax di ko nekk booy dox <coughs> ay tànk ngay doxee ay loxo ngay jàppe ay bët nga gisee te ñoo ko doon sëñ bi sëñ bi daawul génn waaye su su lu bëgg a def ñu ñoo ko ñu jàpp defal ko ca ñooñu nag ñu jar a bàyyi xel lañ te ñu bàyyi xel ñun ñii ñun li ñu bàyyi xel mooy li ñu dese daa bëri te tàmbaleeguñ te jóguñ pour dox seen tànk yooyee euh, jàpp na liñ am ñun jàpp na li ñu am ba mën a def dara ñu amuñu ko woon waaw ñun liñ am ñun amuñu ko amuñu ko ñoom jàpp na li am ñun laa wax de amuñu ko woon lay <coughs> wax de mu ne ku ci xool sa bopp xool at yi nga am ak ba sa ak ba sa waay ba ñu tollee amu ko woon ba ci man wax yéen kon lañ defoon ñoom ba defoon noonee defoon nii wane ko bay xel baax ñun te loolu ci ci kii ci la bokk kon yàlla saa borom borom saxal ci lu mel nii. te gën ñoo jàppalal suñu tànk yooyu bañ àgg ci fañ bu ñu mën ak tamit mu boole ci alaqra bi sa suriyaat yi jooju mu wax ci alxuraan yàlla yàlla booluñ ci loola. ndax bu koy wax da xam ne suñ gëm yi wàññeeku na bëriwul waaye comme nee na ngëmum ñu mag ña day jël ngëm yu ndaw ñi yu manqué yi taf ko ci ñooñee yàlla saa dafa loolee ba fañ àggoon bu ñu mag tamit ñu fekk ñu dox ca waaye sama ko seet na lool ci teewaay bi wala na bi ma seen ngir ñëw sama wax def sedd gu yu def ba ma ne ma ko kon seede saa li wér mooy mbir maa ngi dem yàlla saa am liñ bëgg ca ba ñam mu bu ñëwee rek na nangu ñaan na loxo sëñ Lamine mi nekk ci boppu njaboot gi njaboot gu góor gi ak gu jigéen gi sant yàlla ci fekk gu ñu fekkeloo bis bi ñu ñëw fi teew fi fekk waxet fi suñu doomi sëriñ ji ak suñu bokk yi tedd yi ñu fekk yëpp rek suñu doom yeeg suñu sët yeeg suñu jarbaat yi eh, kon ñu nuyu njaboot gépp rek di ko teg ci loxo Alaay Lamine Bousso mm, di leen siyaare Alaay sëriñ ak sëñ Fall nag moom xam nañ ko tuuti waaye xamuñ ci lu bari itam waaw waaw ndax te waa kay Bousso Bousso Bousso ndax itam ku jaxasoo suñu Fall la waaw ñu yàgg lool eh, suñu Fall doy loon ko ci yu bare bare bare doy yu bare bare eh, ñun tam ñu amoon ci cër ndax euh, bu ma ci tuddee ñaari ñaari mbir rek mën a wax ne ñaari barab bi ma tàmbalee jàng ju ne fu ne moom fa yóbbu waaw bi may sëñ Fallou jox sëñ Moudou Mamoun euh, bala maa ñëw ci loolu sax wax ne diggante bi dafa yàgg mooy sëñ Fallou mu wóolu woon ko xam nga sé xam nga yor yor daamar jooy foo jëm ñu mu yóbbu la loolu dafa doy waar sécurité la tam doyloo ko ci lool euh, mu jógee armée ñëw nekk ak sëñ Fallou am na diggante xeex bari xew na ci waaye sëñ Fallou doyloo ko boppam te loolu nag lu mu gisoon ci moom la wóoloon ko wóolu goo xam ne tam bëriwul ñu mu ko wóoloon noonu waaw ndax jaxasoo nañ ci wàllu yu bëri jaxasoo ci wàllu biir jaxasoo ci wàllu bitti mu doyloo ko doyloo ko ci jëmmam doyloo ko ci njabootam doyloo ko ci ci alalam loolu nag fi lañ fi les a yem nit ki lu sa alal sa njaboot sa jëmm te fu ci ne doyloo woon na ko ca bu wér wér eh, li mu ko xamal bëriwul ñu ko xamal waaw yàlla dimbaloon ko tam muy ko am secret kenn mësu dégg mu nettali ci lenn te suñu fàllu woon na ko secret yu bare bare bare bare yoo xam ànd naa ak moom ci biir oto ànd naa ak moom ci guddi ànd naa moom bëccëg waaye mosu ko nettali fenn lu dul benn benn yëmbuwul di waxtaan da ngeen di waxtaan ba àgg mu door koo wax te du ko nettali kon loolu lu ko yàlla defal la te it dañ ko daan tooñ sax ay jamono naan këram bi da def ay kaaw defe ne kaaw la fi defoon denc xaalis <laughs> waaw ndax defoon nañ li jaar ci loxoom ci xaalis te eh, eh, ak ak ni kër gi mel daaw ko daaw ko fere maa ngi cee dégg maa ngi fàttali ko école yi ah, ah, kër gi suuf kër gi lépp ay kaaw la da ko denc xaalis ndax waa ndax kër gi ni mu demee boobu ak xaalis bi daal ndax euh, gi dañuy wax ne am na jamono bu ñu ko bu ñu bu ñu siyaare yi ñëwee ak yi màggal ba noppi day am commission yu koy wàññi bu ñu ko wàññee ba noppi dañ ko def ci benn néeg ay saako lay doon moo yor caab ja caab bi néeg bi def saakoy xaalis yi mel ni mel ni waaw boo tax ñu dafa def kër kër gi ay kaaw denc fi xaalis waaye yaakaar naa ne kaaw yi bu fi amee bëri bëriwul de <laughs> waaw bëriwul waa waaw waaw mu ngoog xëy na gars yi xam ko nag def ci secret waaye daal loolu lañu ko daan tooñee waaw muy loo xam ne ñu bari bi doon ñoom kër gi dana mel ne neen ko nëgë waaw waaye la jaar ci loxoom ci euh, àll sëriñ bi bari woon lool mais boo gisee kër gi ni mel ne xam ne lañ foogoon bokk tëg li am waaw te li gën a jafe mooy loolu doyloo nit ci sa alal doyloo ko sa jëm doyloo ko sa njaboot te loolu dajalew na ko suñu fàllu ñun tam yàlla baax ñun ni ma la ko waxee ñaari jàngukaay yi ñu dalee jàng yëpp bu ci ne moo ñu fa yóbbu ba ngay wax ne ñett sax bu njëkk bu moom mooy Daaru Salaam Daaru Salaam bu ñu fa suñu fàllu yóbbu moom Alaaji Sëriñ mii la jox mu jël ak sëñ Ousmane Bousso ñoo ma fekk fee boobu soxna Soore mi ngi ci kër sëñ Boubou Fall wala ma fekk ak takkusaan dañ la yóbbu sëriñ bi ana Paate sax ñoo ànd Paate ma nga xamoon ñoo ànd booba Paate ñoo ànd nii ñëw waaye mi ngi nii waaw léegi eh, Paate ñu daan àndoo di defandoo yëf yi yëf yi yëf yi yëf yi gone waaw nga xam dama caa tàng ba ne du ma dem te Paate du dem Paate Paate demul sëñ Fall bu ko Paate daal benn benn bolle bolle bolle lañ koy wax ma nga nee waaw waaw kuy bële waay ñu ne ko bële daal benn xale la mu daan fool ca bëgg dañ ko dañ ko wooye jëli dañ ko jëli <laughs> ñu dem wooye paate indale bàyyam baaxee rek mu mu bi waaju ñu ko wax sëñ Njaay Jóob yàlla na ko yàlla yërëm mu ne du du euh, waaye nguur si dafa ne du dem tapaate demul waaw moo tax ma ne la mu ne ko waaye sëñ man boo bëggee sax man ma ànd ci far <laughs> waaw man mi waajuram boo bëggee sax ñu ànd ci kon li ma bëgg wax rek mooy alaaji moo ñu yóbbu Daaru Salaam ànd ak sëñ Ousmane Bousso ci oto sëñ Fallou tak ngor googu maa demee mu wala ko ak kaamil ak paate mii mu jébalu sëñ mu daawoon nga xam ne gannaaw bi lañ ma nettali loola ndax man boobu maa ngi xaarul ndax jóg gi ma fi jóge nee na da ko ne sëñ Fall li ak baax ci moom la yem ndax am sa mbokk nga tuddi ko tuddi ko kenn sa njaboot doy na waaye jébal ko ko nag eh, eh, ak xotti baax la waaw mu ne waaye waaye mu ne nag sëñ Fall dañ cee cax ndax damaa jox xale bi tuddi ma ko eh, boole ko kaamil akub dongo mais loolu message la man li ngeen wax léegi message la jëmmi tudde ma ko rek doyoon na waaye jébbal ko doyoon na waaye boole ci kaamil mooy bëgg naa ëllëg bu ñibbisi na mën a alxuraan ñaareel bi boole naa ko dong bëgg naa buy ëllëg na am mbooloo wala bu leen ko sonal ci liggéey ndax bu doon lu ñeneen laa leen la mu duma mun décortiquer <laughs> décortiquer message bi mu daal leen yóbbu na ko si kër soxna may soxna may kabiré ba ma nga fa maa ngi fàttaliku loolu waaw laaj sëñ ak sëñ Ousmane ñoo yóbbu soxna may maa ngi fett dèjà fàttaliku soxna si maa ngi fekk muy xelli café ci ngoon gi maa ngi xaal nag damay ñibbi damay ñibbi damay ñibbi waaye xam nga waa kër sëñ bi rek ñoom seeni mbir yàlla dogal na maa ngi fàttaliku bu xelli kaas kaas jox sëñ Ousmane xelli kaas jox alaaj sëñ Bousso man maa ngay xaal waaye dafa ma teg ci kaw moom soxna si am na lu mu jàng daal xaw ma lu mu jàng ñoom bi ñibbi si yëguma ko waaw kooku man kooku mooy jàng bu njëkk ba beneen ñaareelu jàngu ba kër kër ma ñaaw si la kër ma ñaaw si la moom fa yóbbu ci otoom daan kii man la kay <laughs> oto mu yóbbu mu fekk fa sëñ mu suñ jëwriñ foofu ci kër mu ñaaw si la ñetteelu jàngu ba mooy kër as jaxate kër suñu as jaxate kii keroog moom leen dalee ci moom fa yóbbu kon loolu yëpp ay boy la yoo xam ne cër bu ci ne mën nañ cee wax lu bare bare bare bare waaw mu doon koo xam ne daal li ma ko li ma la ko wax rek xam na lu bari sëñ Fallou sëñ Fallou doyloo woon na ko ku amoon discrétion la li ngay wax discrétion secret mosuñu nettali lenn ndax bu doon nettali lenn mbaa mu ànd ak sëñ Fallou ngir àdduna ba la bëggi kon këram bi dana mel ni nu rawe su lii ndax dañaan wax ne mooy xalif mooy xalif bi <laughs> mooy mooy xalif général ndax lim li mu yoral xalif général ak li mu ko xamal kenn xamulu ko waaw loolu nag loolu la gis nañ xilaaf yi jaar gannaaw bi wute na <laughs> waaw na boo ko defee rek ñu mën a wax ci moom lu bëree bëri dongo yi yi am na jamono mooy seen jëwriñ liggéey daara ci bëri ci loxoom daan jaar gerte gi mu commencé jaay xaalis bi ci loxoom lay jaar siyaare màggal yi ak daara yi ma ko waxee sànq néeg bi ñu ko daan denc mu daan yor caabi ja te te nee na bu ma saan yor léeg-léeg suñu fàllu ci kii daana ci jël ab lim jox diw jox kenn nga xam ne ay xaalis bu bari lay doon su maanaam bu la joxee xaalis boo xam waru ko ne 50 millions la jamono yooyu léeg nit ñëw mu ne la wut ci ñaar fukk jox ko ñaar fukki junni ëllëg la na la dénk la ci 100 mille dina laaj ndax la ma la na loolu kenn xamul lu muy niru waaw jamono jooja di di di dañu mu ne diw ñëw na nañ ko jox ñeen fukk diw a ji lii nañ ko bàyyee ci kër gi lii nañ ko jox sëñ daam mu denc ko lii nañ ko jox lii nañ ko jox doo waaye néeg bu ñu daan denc xaalis bu ñu compté bu noppi xam naa bu doon busoo rek moom dana doxal leen waaye bu dafa sant mbàkke ci diggante boobu kon daal muy ñu mën ci wax lu bare bare bare rek xam naa bëgguñu jotaay bi gën a yàgg te it am na ci loo xam c'est trop personnel dafa yu personnel la waaye rek euh, loolu daal ñu tënk ko ci xam ne suñu fàllu doy la woon na ko Hmm? waaw fu nga fekk waaw mu ngoo ba ci mujj gi sax talaata yi nga xam ne moo xaw a nuróog bisu tey suñ fal wàccoon ci liggéey nee nañ keroog moo ko wat moo ko lewil ay ko waaw nga xam ne ba noppi ne ko nag nañu wax ñu ñu ñu gor garab bi ne bëgguma tey dara ndox sama dégg suñu tubaa xam ana garab nekk boobu dafa la suñu xaalis yi di waxaan nekk lim na lim na biir ba bu dara dox sama la fal lu wax keroog ndeke lim na lim xam nu mu ko waxee ca waye wa mais daal li ma ko wax alaaj sëriñ daal moo ko mujj wat moo ko mujj lew xam kooku mooy ku la wu ku la wóolu ci ci alalam wóolu la ci jëmmum wóolu la ci wóolu la ci ak njabootam waaw loolu mooy su ko weesu ndax kóolute yi ñu fi gis yëpp gannaaw bi ci leen lay dem rek dañ lay lu ci alal waa ñu wóolu la ci baat waa ñu wóolu waaye wóolu la ci jëmm wóolu la ci njaboot wóolu la ci alal loolu yombut ñu ko boole kon nag bu defee loolu rek loolu rek dana sëkk dem doy na ko ndam waaw te am na noo xam bu ko doxalee woon kër gi dina mel ne nu dul nii <laughs> moo tax may la ci tàmbali bi bu fekk ko fa ci du nekk xañ la nee bi ñuy keroog bi ñuy coup d'état Senghor nee na Senghor dafa yeble Touba fekk ñu sëñ Fallou fatu dugg xalwa nee na bi ñëwee ñu ñëw ci moom wax ko ko nee na kër bu mu dem sëñ Fallou dafa jéggi permis fekk ko ci biir néeg bi nee na ba mu fa eggee sëñ Fallou ne ko lu xew mu ko sa waa ji leen wax ne moom lay coup de temps mu ne ko bu ngeen demee nee na ko xaddu damm ñu xaar ko ci barak bi mu ñëw mu ne na bu ngeen demee nee na ko xaddu damm na wax ñu ne rajo Ndakaaru nangu nan ko nee na ñu toog tuuti ñu ne ko rajo Tëngéej di moom la nangoo gut nee na ñu def télégramme ne rajo Tëngéej nangoo gut ko sëñ Senghor bi mu waxee ñu wéer nga naay nee na moom jamono yooyu rek fekkoon na mu yore loon Senghor ciw jiwu 5 millions ci xaalis nee na ci la ko Senghor baale. ah ñun daal ñoo ngi leen sant bu baax cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem ndax ñaanal alay sëñ bu sa ñaari eh, eh, ñaari ñu bokk ci sëñ Fallou dikk teew fi sëñ maam moom du ma ne guleet ndax moom ak sëñ bàyyi seen abal la waaye moom fi la daay yandu léegi jamono ji moo ko mayutu xat-xat bi ba mën a yandu waaye fii daa yendu bañ añ mu doog a dem bàyyi seex mi nag moom itam noonu la demee ci bëgg ma bëgg sidna mi ah sidna mi nag ñu ngi koy sant bu baax ndax bañ danee ba mu màggal ba léegi at mu ne dana yëkkati juróom ku ko nag ko def te it maam du ki du ki ne on te gëj naa tukki loolu yaa waa ji doom làqu na rakkam it nekk ci wéra yi baana ma ne ko ren ji moom xam naa moom moom dañ lay jégal rek waaye teewul mu na moom li ma war a def li ma war a def dinaa ko li def kon nag ngeen ñaanal ko bu baax te ñaanal yi sam ñi ma bokkal bàyyi ndax sagal nañ ma taxawu nañ ma ndax baas bee ñu baas ren ak li ñu ci ñàkk ak li ñu ci daj lépp te sëñ te yëpp ak taalibe rek a tax ñu ngi leen ñaan daal yàlla def ñu jubóo yàlla def ñu ngi nekk benn yàlla dafa ñu ak naataanga joo xamante ne daal lépp li ngeen bëggati ci àdduna dañ leen ko ma defal ndax ndax ndax ndax ndax wax nii rek dafa dafa doyut ñu ne tey jii kas rayab jot na ñu ne njaboot alay sëriñ ñoo dagee lii jox ko sëñ maamu ñoo dagee lii jox ko bàyyi seen balla loolu lu rafet la te moom bu fekkoon am na tey jii moom danañ ko def kon nag ngeen ñaanal ñu ñu am xéwal yoo ne dañ leen mën di fekk nekk lu ngeen soxla ñu nekk ci la ñuy ñaan ngeen ñaanal ci baax sëñ Fall naataanga dafa leen xéwal sant nañ suñu xol sedd na ak taalibe yëpp taalibe alay sëriñ bu tey yëpp ñu ngi la sant di sant ñëpp daal ñun daal suñu xol sedd na sedd goo xam ne amul fu mu yem ah bis ni ko sëñ bu sëy seet na xolu sëñ Fallu seet na kontaan nañ trop jërëjëf Mbacke yàlla nañu fi yàgg te wér baax ab borom Tuubaa jërëjëf Mbacke Bee aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu taj leen siyaar taj leen balaaq ñu ngi fii nag ci kër alxaaji sëriñ Bousso Safour alxaaji sëriñ Bousso Safour nag buñ ko waxee kenn la ci njabootug Mbusoobe kenn la njabootug sëriñ Saa Bousso ndax sëriñ Baara Bousso mi waajuram sëriñ saabu Bousso moo ko jur sëriñ saabu Bousso ak sëriñ Mbusoobe ak soxna Jaara ñoo bokk benn waajur alxaaji sëriñ bu Bousso Safoor buñ waxee alxaaji sëriñ Bousso Safoor ñëpp xam nañ ko ak sëriñ Fallu sëriñ Fallu waajuram sëriñ Touba sëriñ Fallu moom soxna Awa Bousso soxna Awa Bousso ak sëriñ Saa mi nga xam ne mooy maami alxaaji sëriñ ñoo bokk sëriñ Bousso bi kon eh, ñu ngi ci ëttoom nañ nekk moom alxaaji sëriñ Bousso Safoor ngi taxaw fii ngi nekk ay njabootam muy ay sëtam ah, ñu fekk si nag ah, suñuy kilifa giital ci kilifa goo kilifa yooyu Serigne Mouhamadou Lamine Bousso di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te àndal ko ak wér te di ko ñaanal mbooleem ay rakkam yu góor yi ak jigéen yi ginnaaw ba ñu leen siyaaree ñoom ñi nga xam ne ñooy njabootu alxaaji Serigne Bousso Safoor Eh, di leen sant bu baax ta di leen gërëm seen taxawaayu rafet ndax eh, buñ demee ba ci fii bay taxaw taxawaay bu mel nii ci alxaagi sëriñ bi Sassafour man nañu ne suñuy kilifa yi nga xam ni ñooy njabootu alxaagi sëriñ bi Sassafour seen taxawaay bu rafet ci la bokk ndax ñoom ñoo xàll yoon wi te it ñoo àggale mbir yi foo xam ni bañ mën a taxaw tey jii di taxawal ak di jëmmal alxaaji sëriñ bu safaru bis bi nga xam ne yàgg nañ ko di def ah, waaye nag euh, sët yi am ci taxawaay bu rafet boo xam ne taxawaay bu kawe la mooy ñii ma nekkal ñu nekk sama gannaaw ak ñi fi nekk ñëpp ma di leen waxaaleel ñu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne ki euh, seen xalaati bopp ak ki seen man-mani bopp ak ki seen alal seen dara fekkewu ko koo ci gis rek euh, ndam ak ngamba ak bëgg ndam ki bis bi rek moo loolu mooy yitteem te loolu it alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na may nañu ci ndam lu rafet rafet ndax ndam li ñu ci yàlla njëkk may mooy ànd bi rek ak xol yu ànd yi xol yu ànd yi rek loolu ndam la yàlla it may nañu ci ndam ndax eh, bis bi yàgg nañ ko taxaw bi ñu waxtaanee eh, ba mu war a am fu mu war a yegg ñu xam ne war nañ koo mën a yaatal mbokk yi taalibe yi ak wëllëre yi ndax alaak sëriñ ñëpp la nekkaloon ñëpp la doon jëflanteel ñu ne nag war nañ koo mën a yaatal ni ñuy yaatale yeneen bis yi ndax lu baax kenn du ko xumtoo euh, moo tax ren ñu am ci waajtaay ak taxawaay boo xam ni biñ ko waajalee ba ni nañ ko defee nii sët yëpp ànd ci tarafetlu ko moo tax ñu gisaat waneen baneen win ak yeneen jëfin ak yeneen matuwaay yoo xam ne jëlaat nañ ko ci tey loolu feeg nekk bis bi tey ku nekk ku gis xam ne ah, njabootu Serigne Fallou gi kenn manquéwul njabootu Mbusoobe kenn manquéwul dëkkandoo yi kenn manquéwul andu jàmm yi kenn manquéwul te loolu yaatal goo xam ne yaatal nañu ko bis bi ak fu ñu ko yeggale ci ay xalaat loolu moo ko waral kon njaboot gi seen seen taxawaay muy sët taxawaay bu rafet lañ taxaw ci bis bi xam nañ kan mooy alxaagi sëriñ ci ñoom xam nañ kan mooy seeni waajur ndax eh, bala ngay fonk sa maam fonk sa waajur kon ñii njaboot gi wane nañ ni fonk nañ seeni waajur bu wér a wér moo tax ñi fonk alxaaji sëriñ bi sa safoor ñenn ñi fekk ko fi xam ko bu baax ñenn ñi dégg ko waaye booy xool ñi ko fekkee ñi ko fi fekk ak ñi ko dégg day day mel ni doo mën a xàmmee ñi ko fekk ak ñi ko dégg ndax ku nekk da yaakaar ni yow la yow yaa ko gën a xam wala yaa ko gën a bëgg. te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ndax ko xam alaaji sëriñ xam ne li mu liggéeyal sëriñ Touba jaar ko ci sëriñ Fallu ah, loolu Touba boo doon boo doon wër ñëpp mën na ko seede liggéeyam dafa mos a sell nekk naag sëriñ Fallu nekkin wu rafet di ko di ko sëriñ Fallu gërëm ko jël ak njabootam ñu bari jox jox jox ko ko jël ak njabootam ah, goo xam ne ay doomi boppam dañ ci seen tout tànk mu mu jox ko alxaaji sëriñ mu leen làggante loo lépp kóllute ak wóolute ak lu mu gis ci moom loolu moo tax moo tax sëriñ Fallou gërëm na ko loolu loolu lu ñëpp mën a xam la ku nekk buñ doon buñ doon wax ki si ngalaayu sëriñ kii ngërëm li nga xam ni moom la ko sëriñ Fallou gërëm loolu dafa feeñ ba ci njaboot gi day fi fooñ ba ci tur yi feeñ ci jëmm ji ku nekk xam ne alaaji sëriñ ba ni mu ba waxtu yi mu fi war a jóge ak jamono yi mu fiy jógee lépp suñu borom xamaloon na ko ci digganteem ak Serigne Fallou moo ko xamaloon moo tax moom bi mu fiy jógee li nga xam ne moom la gënoon a yitteel te gënoon koo bëgg mooy njaboot gi doon benn woote bi mujjee woote woo ko njaboot gi na ngeen nekk benn kon xam naa ne lii mooy la bëggoon mooy njaboot gi nekk benn ndax buñ demee ba di la wooteel bis sa njaboot toog say sët toog la nga doon ñaan yàlla di ko dénk njaboot gi suñu borom dimbali na la ci. kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax kon mel na moom la bëggoon ci ci ak njabootam yàlla fay na ko ko ci ak njabootam ba fay ko ci ay sëtam ndax ku nekk xool taxawaay bi ak xool bitti bi kon li ci biir kër yi xam ni yàlla fay na ko ni bëggee woon njabootam ànd noonu njabootam ànd nañ noonu ah, bis bii nag bis la boo xam ne lu ci waay def rek doo ko ndax si alxaaji sëriñ bu sa safaru liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonent bi liggéeyal na sëriñ te liggéeyal na waa ju baax ju nekk képp dimbali na ay nit ba tey te kenn mësu ko xam taxawaayam ki tuubaa ak fudul Touba dafa mas a rafet kon buñ ko wootalee bis bu toll nii ah, alhamdulilahi rabbil alamin rek lañuy ñuy mën a wax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant it sët ndax am nañ ci ren taxawaay boo xam ni taxawaay bu am solo la te ni daaw lañ ko doon waxtaan ni ki daaw rek lañ ko waxtaan jël ci ay engagement kon am nañ yaakaar bu ñu continuer ak engagement yi ñu yor suñu borom mën nañoo defal te feex ba fañ bëgg a àgg rek ñu àgg ko lépp rek ngir sant alaaji sëriñ ak ñaanal ko ak delloo ko njukkal ak delloo njukkal it waajur yi nga xam ne ñoo na boole kii alaaji sëriñ bu sëfar sant nañ gan ñi dëkkandoo yi fi ñëw ñëpp sant nañ mbokk yi dëkkandoo yi nga xam ne ñoo génn seen kër able ko ak mbokk yi nga xam fu ne jóge nañ fa kilifa yi ak njabootu sëriñ Fall ak njabootu sëriñ Touba gi ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen sant nañ it waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ànd ak ñun bis bi ndax buñ ci amee taxawaay yenn yi ñu bàyyee ñu ko rek ba ci ak njabootam sax am na ñoo xam ne dañu ànd ci biir sët yi doo mën a xàmmee kon loolu it alhamdulilah rabbil alamin sant nañ ci bu baax a baax ñi ngi sant daal di sant yàlla ci kàddu sët yëpp di xam ne lii nag ah, nañ ci gën a taxaw rek gën kee sax gën cee am yaakaar ndax ki ñuy liggéeyal ku koy liggéeyal war ngaa mën a am yaakaar sa bopp war ngaa am yaakaar ki li ngay liggéey yàlla nañ ci yàlla defal tawféex sant nañ bu baax di ñaan yàlla ku fi teew ak ku ci yëngut ak lu ci waay def rek yàlla na ko yàlla ful yàlla na ko yàlla barkeel ci barkeel Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.